xam ngeen ni laago laago du weesooy laago du weesooy ku jigigul dex ki warul da reetaan ku jigigul dex ki warul da reetaan ki lap ci dex ki moo man ku def lu rëy am na lu rëy tey yaa fi njëkk a ñëw sigil handicapé Sénégal rawatina ci saa yi kon ni ko ne bismillah alhamdulillah bu ñu amee Sénégal bu ñu seet si may ñu ay xéwal jërëjëf contentement ndaxte c'est une première ñu ñëw tey une association féminine ñu muy le comité national des Miss Sénégal indi ñu ay dons orthopédiques à travers euh, Amina, leur présidente, et Aïda Fall de Yarabi Couture. di remercier aussi Miss Sénégal ak Dauphinam parce que nit di nga jiite soo ne ñi nga jiite kaay ñu def li suñ si d'accord tamit parce que mbooloo mooy doole kon présidente bi tey bu taxawee am initiative bi ñoom ñu fekk si kese tamit ñu ne duñ def lu di remercier équipe bu comité Miss Sénégal yëpp. si dons yi nga xamante ni indi nañ ko parce que dañoo jouer si insertion socio-économique des personnes handicapées parce que insertion handicapée boo ko waxee te la personne handicapée am problème de mobilité mënut a dem su boobaa du sotti kon dañoo jouer sur l' insertion économique des personnes handicapées ñu déglu di leen remercier encore une fois remerciement boo xamante ni commencement la mais amul fin te jot nañu visiter gis nañu différentes activités yi nga xam ne am na si centre bi. te ñu am problème écoulement produit yi gis ni vraiment jom la ñuy demee si centre bi képp ku fi liggéey rek jom ngay demee parce que ñu xam ne soo ne centre handicapé kër handicapé handicapé ko moom kër handicapé il faut ñu liggéey seen kër pour mu mën a dox loolu rek moo ñu bàyyi centre bi mais su doonoo dërëm wala dara kon heure bi tëj na ndax amuñu appui di remercier encore de passage monsieur Doumbia si l'octroi des dix terrains ñi nga xam ne jox na ko à l'association départementale des handicapés moteurs de Thiès ñu ngi ko si remercier bu baax à travers le comité nationale de MIS di wax it encore c'est une première fois dans l'histoire euh, du mannequinat de ñu jël ay jeunes fi handicapées ñu war a def suba défilé kon loolu it vraiment li ñu naan approche inclusive et approche participative tey dem nañ ba le comité national des Miss du Sénégal incarné cette démarche euh, participative et cette démarche euh, euh, approche genre bi ñuy wax genre kon duñ def di leen di leen encore une fois di ñaanit miss bi miss moon bi mu war a dem dañuy ñaan si ni ko Sanox di waxee rek ñun waayu yàlla yi la ñuy wax parce que souvent handicapé awal dañ naan waayu yàlla yi su dee kon ñun waayu yàlla lañu ko yal na yàlla sa mbërëm def leen. ñu indi coupe bi incha allah au Sénégal yàlla si mbirum nee na ko defal ndam gi incha allah si barke handicapé laay wax parce que am na lu ñu xam te ne yàlla defal nañu ko te képp kuy defal handicapé te yàlla tax rek yàlla du loo doy loo mukk ginnaaw ndax. ngeen xalaat ñëw indi leen dimbal li waaw tey lu ñu poussé ñu ñëw Thiès parce que man euh, je suis thiessoise fii laa dëkk yaroo fi màggee fi jànge fii ci lycée Malick bi donc euh, bu ñuy def ay activités du rek Dakar lañ koy yemale mais aussi dañuy décentraliser parce que fii aussi am nañ fi comité d'organisation am nañ fi ay sœurs yoo xamante ne nii ak ay xarit yoo xam ne ñi ngi fi peut-être nekk handicapé donc ñooñu dañu jar a jàppale moo tax ñu décidé ñëw fii ci ville de Thiès pour joxe dons yi fii ci centre handicapé bu Mbour 1 Uh-huh. volet waaw volet social bi dafa bokk ci suñu mission parce que aussi ñun dañu amee association bu tudd Gorée Gate boo xamante ne ni c'est pas la première fois ñuy def activité yu mel nii dañuy def sax di indi ay matériel médical chaque année ambulance médicalisée ay dons orthopédique matériel orthopédique dañ koy indi souvent di ci jàppale askan bi mais aussi d'abord di sant di gërëm euh, le président Macky Sall parce que euh, mi ngi mi ngi ñuy jàppale bu baax ci à travers euh, son gouvernement parce que ku ne xam na ni don dafa bëri ay procédure am na il faut bala nga ko mën a indi di nga def ay exonération di nga def ay demande acceptation de don donc euh, vraiment administration bi euh, pragmatique nañu pragmatisme boo xamante ni lépp luy autorisation ak euh, kii acceptation ñu ngi siy jàppale ba nga xamante ni du am benn jafe-jafe benn problème si indi fi conteneur yi donc ñu ngi leen si sant di leen si gërëm te. am mhm, mhm. bi. waaw pare ngeen pour gën a yaatal partenariat bi. waaw pare nañ pour yaatal partenariat bi parce que lii du yem fii rek ndax euh, dinañu wax ak suñu partenaires yi nga xamante ni ñoo nekk ci bitim réew pour que ñu mën leen gën a jàppale parce que dañu impressionné wu bi ñu ñëwee fii façon corps de métier bu nekk fekk nañ ko fii donc ñii ñu jar a jàppale lañu parce que dañu bokk ci développement dëkk bi parce que dëkk bi lii moo koy développé bu ñu wax formation professionnelle c'est important te tey vraiment gis nañu ñoom malgré seeni euh, Euh, contrainte ñu am déplacement mobilité bi ak fatigue bi ñuy def mais ñu ngi liggéey ñu ngi defar lu nekk daal mi ngi fi xam donc ñu ngi leen si sant di leen si gërëm di kontaan. Euh, mm-hmm. Miss ñu euh, waaw ñu ngi koy waajal mu ngi préparé wu mi ngi def ay cours de formation en anglais di def cours de développement personnel. mi ngi aussi euh, góorgóorlu di xool côté culture bi di documenté wu aussi parce que ci la bokk parce que ku ne Miss Monde ne aussi vendre la destination Sénégal donc ñi ngi ci góorgóorlu bu baax mi ngi continuer di ci liggéey pour que mu mën a indi ndam li fii au Sénégal indi couronne bi pour la première fois parce que nag euh, Afrique dafa war a gagné Miss Monde. comme euh, waaw Coupe d'Afrique football ñëw na kan ñëw na. Euh, kii aussi JO ñu ngi ko fi séentu deux mille vingt six mais pourquoi pas war nañ fi mën a indi aussi concours de beauté ah international waa d' accord merci beaucoup. voilà euh, chers internautes à travers Thiès Info ñu ngi dalal euh, suñu deux miss yi Miss Sénégal Fatima ak ki nga xamante ni mooy la dauphine Coumba ñu bàyyi leen rek ñu nuyoo à travers Thiès Info Thiès TV. asalaamaaleykum ah, maa ngi nuyu téléspectateur u Thiès Info man la Fatou Lo Miss Sénégal 2021 voilà alors Kumba. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Thiès Info man la Kumba deuxième dauphine Miss Sénégal. nag ci suñu Miss euh, Sénégal 2021 gis ngeen ni mu rafete rafetee tarkaala macha allah alors gis nañu tout à l'heure ci euh, waxtaan bi nga visite bi nga xamante ni def nañu ko euh, li ñu gën a marqué mooy pour une première fois vous allez représenter le Sénégal Miss Monde ban sentiment nga am biñ la annoncé loolu. non je je sens que ni ça se voit nettement à travers ma voix que je suis honorée et ravie. de représenter le Sénégal si compétition boobu ñuy day wax Miss Monde 71e édition. Mhm. alors biñ la ko waxee ban sentiment nga am ah, moment lan nga yëg. non j'ai été très émue et ravie parce que yombul ñu tànn la yow ne la yow yaay représenté yow yaay porté le drapeau du Sénégal fee Miss Monde. Mhm. alors actuellement nii euh, je suppose que c'est pas facile ah c'est pas du tout facile nan nga ko euh, fas yéenee euh, préparer. non incha allah ñu ngi ci ñu ci préparation yi avec le comité Miss Sénégal Nouvelle Vision ñu ngi jàppale si un pa lacune anglais yi ma am ñu koy jéem a rectifier ak euh, bien-être bien yooyu yëpp ñu ngi siy dox incha allah. Mhm. et aussi la famille je suppose. oui carrément. oui les amis sama yaay sama papa ñoom moom dañ ma mës a bàyyi ginnaaw dañ ma ni ma jàppale si Miss nationale bi noonu lañ ma nar a jàppale tamit à l'international incha allah. Mhm. alors ñu ngi lay nga andi ndam li. amiin incha waaw bi bi qu'on est champion d'Afrique kay. <laughs> mel ni année bi moom suñu chance ah j'espère je l'espère. <laughs> alors nga jël couronne Miss Sénégal actuellement nan nan ngay dundee peut-être sa vie dina changer un peu donc nan ngay dundee depuis nga nekk à la tête de Miss Sénégal. oui ça se voit ma vie a nettement changé. comment. notoriété bi ma amoon avant du ma awma ko ren mm. awma ko bi ma amoon avant Miss ak léegi ça fait ça deux mm. léegi je suis sollicitée à travers euh, les réseaux sociaux et tout mm. te loolu lépp comité bee ko waral donc maa ngi leen di remercier à travers la présidente madame Aminata Badiane qui est une femme très brave et une dame de fer di lancer waale message aux autorités étatiques pour man dañoo war a euh, mettre euh, seen loxo ci affaire u Miss bi parce que c'est Miss Monde bi may jëm je vais vendre la destination du Sénégal donc dañu war a jàppale bu baax si loolu donc message boobu ça me tient à cœur moo tax ma ñëw tey jii di ko wax fii nii incha allah. alors euh, ñu jublu nag ci ki nga xamante ni mooy la dauphine très belle macha allah yow itamit nga nekk dauphine Miss Sénégal mille 2021 2022 ban sentiment nga am biñ la ko nommé. xanaa kontaan rek parce que c'était pas du tout facile nous étions au nombre de quatorze filles ñoom ñëpp rafet macha allah kenn ñaaw si tey buñ la jëlee ñu ne la yow yaa deuxième dauphine yaa représenté nekk ambassadrice Sénégal euh, loolu nekkul lu lu yomb en plus voilà da ngay kontaan ba doo <laughs> am xale daal dañoo bëgg dafa <laughs> <laughs> alors actuellement euh, euh, comme li ma laaj euh, la miss moom laa lay laaj rek être miss c'est pas facile donc euh, yéen bu diis la naka nga koy dundee actuellement parce que je suppose que ni du doon lu positif rek ngeen di dund je suppose que di ngeen dund lu négatif alors tey lan ngeen di dund ci loo xamante ni vraiment peut-être métti na bi ngeen ñu bi ngi leen tabbalee. bi nga ni nga meloon avant ngay nekk miss meloo ko boo nekkee miss parce que. ni Bien, quand avant une Miss, tu étais libre de tout faire. Mais maintenant, vu que sa photo est sur les réseaux sociaux, il n'y a lay gis Voilà, am na yoo xamante ni accessibilité yu bëri dootoo ko mën ci def. alors euh, les critiques. mënul ñàkk support que mënul ñàkk comment vous vivez ça. mënul ñàkk c' est mais dañ koy gérer parce que. dëkk Sénégal nekk du ñàkk ni parfois dinañ la critiquer dinañ la wax loo xamante ni lu négatif comme lu positif dañ koy jéem a gérer rek. alors merci beaucoup et bonne chance à notre euh, très belle Miss donc lan ngay lancer ban message ngay lancer euh, Sénégal ñi lay seetaan pour vraiment ñu gën la mën a. donc euh, maa ngi lancé un message qui me tient à cœur aux Sénégalais d'ici et de la diaspora pour que ñu jàppale ma. à ce que couronne bi incha allah ñu indi ko Sénégal parce que Miss Monde tamit dafa am ay crit ay euh, critères si nekk et tout dafa am vote yi vote yi si la si dañ ma ko soxla léegi nag maa ngi ñaan sénégalais yi ñu jàppale ma à ce que couronne bi jàpp jéem kii si vote vu qu'on est champion d'Afrique je pense que loolu mun na war a yomb. Allez, merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci, merci beaucoup. en compagnie avec Monsieur Aldo qui de la communauté Miss Sénégal. Bonsoir Monsieur Aldo. Bonsoir, ça, vous allez ça bien? va bien et vous? Euh, par rapport à cette journée de... On dit que cette journée vraiment spécial pour moi. Mm -hmm. Euh, car j'ai fait partie du Je suis vraiment honoré de la remise de dons qu'on a fait car c'était l'initiative de la présidente Amina Badian, que c'est ma sœur, on se connaît dans longtemps, et vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire, car ça touche un peu la sensibilisation à quelques parfois sont des problèmes qu'on ne voit pas, on, on, on, tourne la tête comme ça, et on est là eh, à être ensemble, à être apparemment à le même niveau et pouvoir vraiment donner quelque chose qui va soulager les, gens qui, qui l'ont beaucoup moins de chances que nous. Et donc, euh, ça nous fait plaisir par rapport à, euh, à l'initiative, car c'est ça le bout de Miss Sénégal. Miss Sénégal, si, la représentante de la beauté et tout, mais ça serait même la représentante de quelque chose d'important, de social, de la solidarité, de l'aide surtout, non? Pour, euh, pour donner vraiment une voix importante à la nation. Alors euh, aujourd'hui, on a découvert la facette de Miss Sénégal parce que les gens pensaient seulement que Miss Sénégal, c'est seulement euh, les élections Miss. Mais d'après euh, Madame Amina Badian, vous faites aussi des... Ma, je peux dire qu'Amina Badian, elle a toujours fait de la solidarité. Peut-être qu'elle n'était pas trop prononcée. Tu sais, au début, en 2015, pendant le ramadan, on avait fait une, une remise de Euh, Ndougou, en mosquée avec des enfants qui étaient là-bas, euh, sous à Grand Yoff. On a fait un grand, un grand euh, chose. On a vraiment offert des choses à les enfants, à les, à qui étaient là-bas, qui pouvaient pas avoir certaines choses. Donc on, commence de, de, plus, de On a fait un don d'une ambulance à l'Angor. Euh, on a fait différentes pendant le temple là. Donc euh, c'est bien de, de hmm, comment, comment vous avez dit. Pourquoi vous l'a médiatisé, seulement que peut que les, les médias ne pas trop diffuser. Mais c'est le bon moment, justement, vous faites remarquer, de les faire au milieu. Cioè, même euh, la vitrine sur, sur, les sociaux, de mettre les photos, de mettre les vidéos, ça c'est important. Effectivement, c'est bien de les, les, allarger et diffuser au mieux. Merci beaucoup, monsieur Aldo. Pas de quoi. Et bonne plaisir. continuation. Merci beaucoup, merci à vous. ngi dalal la présidente euh, comité Miss Sénégal Amina Badiane yaakaar naa ni moom kenn dootu ko présenté tey tey mu nekk nag mbégte vraiment ñu dalal la fii nga xamante ni mooy Thiès centre handicapé wax nga ko tout à l'heure mais man dafa am loo xam ne daf ma marqué parce que euh, euh, bi nga nekkee ci milieu bi yàgg na lu tax le choix de centre handicapé tey nga jóge Dakar bàyyi 14 régions yi waaw salaamaaleykum man la Amina Badiane yéen waa Thiès euh, info maa ngi leen di remercier d'abord ci seen présence euh, di kontaan. Euh, li tax ma tànn centre handicapé bu cees parce que man dama dëkk Thiès Thiès laa judo yaroo fi. màggee fi doon jàngee ci lycée Malick Sy gii donc tey bu may def activité sociale du ma ko yemale rek si yeneen région yi fu mel ni dakaar mais aussi war naa xalaat fi ma jógee parce que neenañ bala ngay dàq mu jëm ci àll bi nga dàq mu jëm ci kër gi donc yoon la tey ma ñëw fii ci sama dëkk indi fii matériel bu toll nii waaw. alors ñu bëri sax ñu bëri ñu bëri tey lañ découvrir ni Amina Amina Thiès la dëkk par exemple <laughs> man parce que yàgg nga ci milieu bi di def lu am solo mais li ma marqué aussi mooy euh, euh, yeneen activités yi nga xamante ne yéen a ngi ciy taxaw di ko def lan moo tax euh, vraiment euh, Sénégal découvre ñu lool ci Amina. waaw parce que man boo seetloo sama génn bariwul sama wax bariwul ku effacé wu la parce que nii lañ ma yaree donc euh, moo tax tey ñu bari xamuñu ne Thiès laa juddoo yaroo fi te fii laa dëkk. moo tax nag te li may def yëpp bari na du lii rek parce que man dama diriger benn société bu tudd Secoba Secoba service communication événementiel am naa aussi bi journal magazine bu tudd Africa Industrie magazine. damay liggéey aussi ci tourisme bi parce que je suis ambassadrice African Tourism Board conseil du tourisme africain te loolu dafa am solo ci promotion du tourisme africain donc samay activité bari na dinaay toog Sénégal mais bariwul bari naa ay mission yu may def bitim réew ak tamit dans les rencontres internationales lépp lu bokk ci tourisme ak euh, marbre ak euh, emballage duñ ko gën a yaatal waaw waaw beneen plateau gën ko yaatal parce de connaître vraiment Amina Badiane dëgg la dëgg la je tey nekk ci njiitu njiitu euh, Miss Sénégal wala lu mu doon sax en tant que jigéen yombul naka ngay dundee loolu y a les critiques y lu nekk ngi ci biir waaw loolu yombul mais dama jàpp ni mooy fii képp ku yàlla sàkk rek am nga ñu la bëgg am nga ñu la bañ te critique aussi baax na ci benn côté parce que dina servir nga améliorer parce que nit warul bañ critique parce que perfection amul fenn donc dañuy góor góorlu rek di fexe ba li nit ñi bëgg ñuy dox ci loolu aussi parce que nag li ma yoree patrimoine la Sénégal moo ko moom à chaque fois ma wax ko mii Sénégal ñun ñëpp a ko bokk xëy na yàlla dafa dogalee mu jaarale ko ci man euh, Moïse ma doy ko mu jox ma lenge yi yëfu nit yëpp la ñëpp ci am la donc euh, bañuñu ku critiquer bañuñu aussi ku indi aveem ku wax tamit wala tamit bañuñu ku ñëw jàpp parce que bu ñëpp jàppee mhm. affaire yi sotti day gën a baax rek ah, waaw. des fois ñuy dégg aussi un peu dinaa xaw a xuus tuuti ñu ne Amina dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a ñàkkee sa loolu nan nga koy dundee dafa dafa dang làmmiñ je m'excuse mais voilà loolu loolu lan nan ngay dundee loolu. waaw loolu euh, gaw. l'occasion c'est l'occasion à travers Thiès Info nga leeralal gars yi. waaw dëgg la dëgg la dëgg la loolu du du ñàkk kersa parce que nit ku nekk ak sa nature. ak sa ni nga mel ak sa comportement parce ñu noppi am na nit ñu effacé wu am na ñoo xamante ni aussi dañu fës dañu bëri wax dañuy wax am na ñoo xam ne aussi sont moins bavardes xëy na yàlla daf ma boole ci moins bavarde ñi nga xam ne dañu teey ah donc loolu la peut-être la ñu xamul ci man mais lépp yar la rek waaw ak ak waaw yar la ak aussi bëgg euh, sama liggéey bëgg réew mi développé man euh, nekkuma ci lu dul liggéey ak jàppale askan bi jàppale samay sœur ci loolu rek laay dox doxuma ci leneen. en tout cas merci beaucoup yoon bi gudd na sore la ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na si yàlla jàppale un dernier mot euh, par rapport ak fii yi nga xamante ni ñoom nga nekkal ak ñi la entouré yëpp. ban waaw di leen wax rek ñu gën a góorgóorlu gën a gëm seen bopp aussi may lancé appel di wax ni population sénégalaise yi nañu gën a jàppale euh, Miss yi parce que dañuy représenter Sénégal à l'international te soxla nañu seen vote soxla nañu soutien moral soxla na aussi réseau au niveau des réseaux sociaux seeni vote parce que loolu aussi dañ ci compter pour que ñu mën a gagner parce que su ngeen xoolee Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk yi population bi dañu nekk derrière la Miss di ko soutenir di ko jàppale di ko gunge ci mission mais duñu ko topp di ko wax wala ñuy critiquer critiquer yu bëri donc damay ñaan rek sénégalais yi ñu gën a delloosiwaat seen xel xam ne lii c'est la promotion de la destination touristique patrimoine la ñun ñëpp nañ si ko jàppale euh, Fatou Lo mi nga xamante ni moo war a représenter la Sénégal euh, fin d'année bii ñu nekk nii fin décembre donc ñu gën ko encourager gën ko jàppale may wax aussi autorités yi aussi nañ ci gën a jàpp waaw autorité yi ñu ngi ciy jàpp mais dama bëgg ñu gën a jàpp ci encore gën a dolli parce que ku ne xam na ni affaire yi metti na organisation bi yombul te xaalis bu bëri lay laaj donc te am naa yaakaar ne dinañ si gën a jàpp. te merci beaucoup ñu ngi leen di remercier yéen tam bu baax a baax ci seen présence à Thiès Info merci à vous pareillement merci.